Euh, dañuy jot ay sollicitation yu bari yoo xam ne suñu xarit yi ak suñu am di jàmm yi vraiment dañuy soucier wu ci mbirum ñàkk waxtaan wala ñàkk jot information comme niñ leen ko naan comme niñ leen ko daan defalee donc loolu moo waral ñu fas yéene rek incha allahu rabbi saa yuñ ko manee nag ñu ñëw ñu indi information yi comme niñ ko wane indi en temps réel tey nag waxtaan bi ci mbirum. ñaari pàcc la la bëgg dem benn bi ci ci suñu xarit Guy mari Sagna ci euh, communiqué boobu mu def ci criminalisation euh, li nga xam ne mooy lanceur d'alerte comme ni mu ko tuddee te euh, ñun amaana sax tuddewuñu suñu bopp lanceur d'alerte ndax nous on est des activistes plus particulièrement sama bopp laa mën a wax parce que man njëriñu Sénégal rek moo ma ñor ak sama avancement wu réew ak avancement wu Afrique leneen li yëpp ça m'intéresse pas donc beneen affaire bi di mbirum l'impôt l'impôt boo ko déggee muy euh, juuti pour ñi koy fay ci marché bi ak yeneen ak yeneen maanaam l'impôt pour ñi ko xamul moom mooy alal bi nga xam ne moom la nguur soxla pour doxal li nga xam ne mooy projet nguur gi ci réew yu bari ressources naturelles yeneen yeneen yi affaire yëpp plus la mais dinaa leen jox exemple bi gën a parfait boo ñëwee tey ci dëkk bi nga xam ne moom la adduna bi yëpp def exemple ok adduna bi yëpp réew mi mu jël mu def adduna bi yëpp réew mi mu jël ñu def ko exemple muy réew onkul Sam maanaam muy Amérique Amérique seen ressource maanaam alal bi nga xam ne mooy alal bi gën a mag ci seen alal ci l'impôt lay jóge maanaam boo gisee développement wu Amérique bi ak ni mu toll ci l'impôt lay jóge maanaam ñun ci suñu kër yi l'impôt kër par exemple ñun fi ñu dëkk tu payes aux environs de million millions million millions par an l'impôt kër rek kër ok seen kër yi fi ngeen dëkk l'impôt yi rek ay six million sept millions jéggal leen ma sax ci chiffres yi parce que ce n'était pas nécessaire mais li tax may wax lii c'est parce que l'impôt dafa bokk ci lii tax ñu mën a bouger mbalit yi di ko yóbbu di sànni euh, te bugguma woon loolu tamit wane mais ñun tey fii par exemple jour bi ñuy war a jël si mbalit yi auto mbalit yi ci l'impôt boobu la ñuy basé wu pour sànni mbalit mi ci l'impôt boobu la ñuy basé wu pour defar dëkk bi ci l'impôt boobu la ñuy basé wu pour fay sécurité wu dëkk bi maanaam lii di alkaati ak leneen ak leneen ak leneen ci l'impôt la ñuy basé wu pour defar tali yi pour moy pour moy moytandiku ci accident yi ci l'impôt wu la ñuy basé wu pour defar lépp loo xam ne dafa doon développement wu réew donc mes amis bépp doomu aadama boo xam ci ab réew muy doomu réew te bëggul fay l'impôt loolu mooy doomu aadama boobu bëggul réewam développé c'est tout simplement ça voilà pour nit ñi xamul rek pour l'impôt moom saa bu ñu waxee waxul l'impôt nga gis doomu aadama bu koy négocier wala bañ ko fay man par exemple man je paye mes impôts avec fierté avec fierté nag damay bëgg a fay impôt ak fierté maanaam bu ñu nee impôt rek damay ne alhamdulilahi rabbil alamin kañ laa war a fay ak ñaata laa war a fay parce que maa ngi xalaat ne loolu bu ma ko defee dinaa mën a faju ci jàmm samay doom dinañu mën a jàng ci école yi gën a set ak école yi gën a avancé am sécurité tali yi dinañ ko mën a defar xam nga ak leneen ak leneen donc loolu mooy fayu lempo du leneen nag ak lu la ci nit mën a wax ne walla dañ may jaay doole dañ may gaañ dañ may nàngam loolu yëpp ay tappale la lempo fay ko c'est tout simplement pour mën a développer sa réew boo gisee tey Sénégal amul ndox ndox wala nga dégg Sénégal ñu ne amul tali wala nga dégg ñu ne amul làmp wala nga dégg ñu ne amul lii wala nga dégg ñu ne amul lële c'est tout simplement parce que l'impôt yi nit ñi fayuñu ko parce que nag réew mu amul xaalis mën ta defaru il faut ngeen bàyyi loolu xel ressource naturelle maanaam buuñaa la li ñuy ne extra buuñaa mooy ressource naturelle donc tappalekat yi ngeen di dégg nii yëpp ñuy gouvernement moo may xoqotal gouvernement et et dama ngeen xam leneen il faut savoir que l'impôt Sénégal léegi dépendretul ci ab président wala premier ministre yooyu fan jàll na léegi l'impôt direction général des impôts et domaines rek moo koy lijjanti nguur gi waxoon nañ leen ko day nañ leen jub jubal jubbanti donc yoonu nguur gi nekku ci ku yaakaar ne di nga xoqotal wala di nga yuuxu tëbaka dal ba président wala premier ministre jël fi dogal ne wala bul fay l'impôt da ngay nax sa bopp donc dellu leen ginnaaw ngeen bàyyi loolu xel loolu c'est fini loolu jeex na ci Sénégal Sénégal tey boo xoolee baadoolo yi rek ñooy fay lempo ngeen jéggal ma bugguma utiliser langue boobu sax néew ji doole ji rek ñooy fay lempo borom barke yëpp nekkuñu di fay ay lempo ñu ngi dund ci kër yi gën a neex ñu ngi naan ndox yi gën a neex di naan ay boisson di tëdd ci tëdduwaay bu gën a yanj bañ a fay lempo loolu jeex na ci Sénégal lempo di ngeen ko fay par force population bi la moo ko laaj demande sociale la population Sénégal moo soxla alalam bàyyi leen affaire gouvernement bi moo may xoqatal parce que damay wax ci moom duma ma fay lempo loolu mooy lan c'est quoi ça loolu mooy yan façon banditisme gouvernement bi moom moom xaalisu Sénégal gouvernement Sénégal xaalisu Sénégal boo leen ko fayee président moo koy dugal poosam dem tëddi këram c'est du n'importe quoi ça non xaalis Sénégal boo leen ko fayee suñu alhamdulilahi rabbil alamin jéggal leen boo leen fayee alal bi fan lañ koy jël mu ne ok bismillah xaar leen ma bloqué yenn imbécile yi ngeen jéggal samay kàddu bëgguma sax di ci wax ma baal leen ma leen ko waxe ñëpp a war a fay impôt ci Sénégal loolu jeex na yooyu guddi paase na romb ngeen yooyu bu leen xalaatati ne di ngeen wax fii ba bañ a fay impôt wala gouvernement wala premier ministre wala ministère wala benn doomu aadama bu mën a dellu ginnaaw wala di fi génne ay décret ne doo leen fay impôt loolu benn gouvernement bu ko def mooy déjà gouvernement boobu bëggul suqali réew donc bu leen toog di xaar di déglu Bass euh, le président Bassirou Diomaye Faye son excellence monsieur le président Bassirou Diomaye fay ak monsieur le premier ministre ousman Ousmane Sonko ñooñu talluñu ay waxu impôt dem leen fay seeni ay impôt impôt mooy développer réew imagine leen ñu ne leen lu mel ni groupe de presse rek quarante xam nga lan moo tax ñu lay teg impo quarante milliards mais impôt quarante milliards fu ñu la ko tegee rek mooy say recette maanaam li dugg ci yow ëpp na deux wala au moins cent cinquante milliards mais naka nga mën a dugalee ay milliards te bëgguloo fay nit mën naa dëkk ci ab réew ngay dajale xaalis ngay utilise ndoxu réew mi di utiliser courant wu réew mi di utiliser li baax ci réew mi yëpp te ba bëgguloo fay dem loolu tamit vraiment dañuy waxante dëgg nag soo bëggee mu dox dëkk soo bëggee mu dox da ngay contribuer au développement de sa pays te ni citoyen bu ne di mën a contribuer ci développement wu réewam mooy fay ay limpo nañu fay boo fayee nag après lu la neex nga wax wala lu la neex nga def mais fayal kenn terewul benn télé wax kenn terewul benn journal wax voilà kenn terewul kenn ngeen wax est-ce que xam ngeen ne délit bi gën a mag ci Amérique boo leen ko laajee mooy lan mooy tax evasion maanaam bañ a fay impôt voilà xalaat leen loolu crime bi gën a rëy ci dëkk yi ñu nekk ñun mooy bañ a fay lempo tax evasion gis nga boo fayul lempo ci dëkk yi ñu nekk mooy li la gën a gaaw a yóbbu prison te kenn mënu koo négocier parce que xaalisu public bi la te ñii dañu valoriser lool ba ci train gis nga fii train wala bus xam nga sax lu simple la waaye gis nga boo sàccee paasu train boobu c'est considéré comme un crime capital c'est très sérieux hein? c'est très nga tëb train te pourtant paasu train bi c'est mille francs mais bëgguñu ko ko def parce que tout simplement xaalisu public bi la c'est l'argent public donc dama ne vraiment xool leen lépp loo leen man te ngeen bàyyi tappale bi te ngeen bàyyi jooy yi te ngeen fay l'impôt ku munul nag fay lempo ku munul te nga yor société munuloo fay l'impôt mais jaayal société bi balaa muy trop tard man nga ko xam nga tey boo yoree ab tele wala nga yor ab boutique wala nga yor dara nga xam ne yow mii de bëgguloo fay lempo mais jaay ko tu n'es pas obligé à le garder loo mënul yor rek mën nga ko jaay kenn du la ko tere mën ngaa xool bu dee tele nga yor nga jaay bu dee oto nga yor nga jaay bu dee kër nga yor nga jaay loo yor rek te mënuloo cay fay lempo jaayal. te ngeen bàyyi tàppale bi l'impôt mooy développer ab réew l'impôt mooy développer ab réew réew kenn mënu koo développer bu dul fay l'impôt loolu rek ku leen ko wax ku leen ne réew man nga koo développer sans payer nax na la voilà donc euh, ci beneen euh, pàcc bi aussi dama gis euh, nit ñi di ma ci interpeller lu bare bare bare bare te yenn saa damay ne Euh, indi ay leeral euh, dindi tuuma xaw ma nuñ ko mën a waxee pour mu rafet indi ay leeral ci mbir c'est pas que mbir mi dang ko ragal wala assumer wuloo say responsabilité lépp lu xew ci One Million March j'assume mes je suis le seul responsable loolu dama bëgg ngeen xam maanaam lépp lu ñu bind posté wax ci One Million March je suis responsable waaye dama bëgg ngeen xam leneen aussi boo leen xoolee one million marche tey bokk na ci page wax naa leen ko damay damay ngeen jéggal ma ngeen jéggal ma dafa am leeral toujours rek may indi boo leen xoolee tey one million marche bokk na ci page yu gën a mag ci Sénégal nest pas li tax may wax loolu mooy page boo demee ba mu am mille six cent on naa mille six cent bu ma juumul mille six cent soixante-dix wala mille six cent quatre-vingts page xam nga loolu li tubaab dina is unheard of xanaa nag yaakaaru leen ne Tunkara ak fukki baaraamam man naa gérer mille six cent pages xam nga loolu mënta nekk sans groupe whatsapp ak yeneen loolu nag boo leen ko déggee du mën a mën a one million marche dépassé na la personne de Tunkara voilà dépassé na ma man dafa am yeneen doomu aadama yi ci nekk yu xarañ lool yuy liggéey plus particulièrement am na fa benn soxla boo xam ne je vous garantis li muy liggéey soo ko diviser par cinq cent Tunkara mënul liggéey benn pàcc bi loolu dañ koy waxte de damay bëgg ngeen xam loolu ci one million marche one million marche dafa am ay doomu aadama yu fa nekk yuy liggéey yu bëgg seen réew lool ñu ma gën a bëgg Sonko nag ma wax leen ko gis nga man ñi ngeen di gis nii xam nga nee naa leen kenn gënumaa bëgg Sonko waaye ci one million marche am na fa ay nit yoo xam ne ñoo ma gën a bëgg Sonko gën maa bëgg Diomaye donc yaakaar ne di nga nekk ci kaw tuwaal bii di attaqué Sonko ak Diomaye am nga ay surprise parce que ñooñu mën nañu daaneel non seulement sa page mën nañoo tëj sa Facebook mën nañoo tëj sa làmmiñ waaye mën nañ laa affaiblir il faut ngeen bàyyi loolu xel one million marche armée moo fa nekk armée te armée bi fa nekk dafa féroce dañuy bëgg ngeen xam ko ku yaakaar ne di nga toog ci réseau yii di saaga wala di ŋàññ xam nga li tax may wax lii c'est très important may wax lii xam nga nit ñu bari tey peut-être amaana mën nañoo toog ñu xalaat ne ah one million marche de Tunkara bu ko bopp metti woon rek one million marche kale da ngeen juum loolu njuumte la njuumte bi gën a rëy ci seen njuumte mooy boobu boo leen yaakaaree ne Tunkara bu noppee wan million marche day taxaw wala Tunkara bu tegee wan million marche day taxaw dootul dox da ngeen juum one million marche dem na ba pare dara mënatu koo arrêté et comme ni ñu leen koy waxee nee nañu leen on ne peut la mer par euh, avec ses bras donc dama bëggoon rek indi leeral ci loolu donc xam leen ne lu bari li ñuy bind ci man million mercenaires rien à foutre ak man je suis démocrate nag waaye ay nit ñooy bind ay nit ñooy def seen liggéey donc man mënuma ci loolu mënuma ci dara bàyyi leen ci loolu xel da ngeen di toog fi ngeen toog yaakaar ne voilà léegi ah Tounkara de nangam nangam non non loolu man mënuma ci dara mënuma ci dara wan million marche dafa am doole y'a mille et quelques pages y'a mille et quelques groupes WhatsApp bàyyi leen loolu xel ay nit ñoo fa ne di liggéey yu dul Tounkara d'accord peut-être man man naa indi idée bi xam nga idée man nga koo sumb mais ide bi boo ko sumbee dafa am ñeneen ñu ci bokk laaj leen band yi nekk ci réseaux sociaux yi di saboter wala di fontoo Sonko ak Diomaye seen page yi dañ koy rey daan dix minutes am na ci ñoo xam ne ci réseaux sociaux yi léegi juróomi nit seetaanatuñu leen c' est parce que doole bi nekk ci wan million marche la ça n'a rien à ak Tunkara yeneen a may tooñ bis bu ne buggi ñu binde waaw Tunkara li mu bind Tunkara li mu wax c' est pas Tunkara mais Tunkara li mu war a wax yëpp mi ngi nii di leen ko wax ngeen koy dégg mais am na yeneen nit yoo xam ne vraiment ñoom ñoom moom seen doole bopp di liggéey di def seen liggéey bu jaggi dayoo bëgg Sénégal kan maa bëgg Sénégal donc il faut loolu ngeen comprendre te important pour ñu indi ko ci ay leeral voilà léegi ñëwaat nañu baal leen ma dafa interrompre tuuti dafa amoon benn euh, décalage voilà donc li ma bëgg ngeen xam mooy encore une fois one million marche c'est comme tey nga ne woon jot na TV wala nga ne Sen TV jot na média wala nga ne Sen TV te ñooñu ñun ñoo leen ëpp doole maanaam bépp média boo gis tey ci Sénégal mën na leen garantiral ne <laughs> est-ce que one million marché mënu koo wër mënu koo wër ndomb ndax yaakaaruma ne am na benn média ci Sénégal bo am mille six cent pages wala ay euh, ay ay mille mille groupe euh, mille groupe WhatsApp c'est assez important pour ngeen xam lii one million marche am na mille groupe WhatsApp wala lu ko am mille cent nangam loolu Tunkar ak fukki baaraamam mënu koo gérer te yenn saay aussi euh, damay wax lii nit ñi duma ma bëgg utiliser one million marche pour xeex ak doomu aadama parce que euh, li américain di ne I find it unfair damay fekk ne c'est pas mi ngi mel ni euh, comme li may wax naka laa ko mën a waxee pour mu rafet mi ngi mel ni nga ne duubal lees mu xeex ak bébé bu juddu démb. xam nga bébé bu juddu dem ba mënul yëkkati ay loxo mënul fi tax nga ne duubal lees xeexal ak kooku xam nga loolu yenuwul maana wala nga ne Balla Gaye 2 xeexal ak kooku loolu yenuwul maana donc loolu moo tax yenn saa yi doo leen gis may bëgg a jëflante parce que doole yemuñu ko comprendre nga voilà lii wolof Njaay naan kii dooree man kuy saaga donc doole yemuñu donc loolu moo tax la plupart du ma bëgg dugg ci yenn détails waaw ginnaaw loolu nag. Euh, tey gis ngeen ay bind yu bari ci One Million March jëmale ko ci suñu député euh, honorable Guy Marius Sagna mu doon wax ci ay kàddu bañ a euh, décréné maanaam di criminaliser di nga xam ne moom mooy lanceur d'alerte yi dama bëgg rek wax ne honorable xëy na am na njuumte bu tuuti ndeysaan boo xam ne am na ko et peut-être am na benn compréhension boo xam ne aussi peut-être moom amu ko ci te ñun am nañ ko ci on a honorable dañ la bëgg a yëgal ne il faut faire la différence entre lanceur d'alerte ak euh, patriote ak euh, mercenaire encore une fois tey ñu bari ñu ngi ci réseaux sociaux yi ñooñu ay mercenaires lañu ils sont payés pour insulter pour attaquer pour dénigrer pour def ay affaires ñooñu en réalité boo leen jàppee da nga leen war a punir double la punition doit être encore plus sévère parce que dañu fay doomu aadama pour mu yàq doomu aadama mi ngi mel ni nit nga gis tey te bari na ci àdduna bi nga gis ay jigéen ak góor yu sekk parce que gis naa sax le cas de cette gambienne là qui est en prison aujourd'hui au Sénégal euh, y a une gambienne en prison au Sénégal am euh, problème ak benn homme d'affaires donc day am ay chantage yu nekk ci diggante góor yeeg jigéen loolu bari na tey ci àdduna bi. da ngay gis tey góor sekk ak jigéen wala jigéen sekk ak góor mu yor benn vidéo wala mu yor benn affaire am mu koy chantage ne ko boo ma joxul nangam dama lay def nangam wala boo ma deful lii dama lay def lële loolu bari na fi donc loolu dafa am aussi monsieur le député dans les réseaux sociaux da ngay gis tey ay mercenaires yoo xam ne ñoom dañ leen fay pour ñuy saaga nit ñi da ngay gis nit ku ñu fay ne ko demal saaga Tunkara mu dem. wax bu ñaaw boo xam ci àdduna bi yëpp mu wax ko Tunkara léegi amaana Tunkara mën na koo muñ mais bu ko waxoon tey keneen ku faible koo xam ne amul kattanu Tunkara kooku mën naa dee loolu la ñuy wax bully bully dans notre société ñun bully lañ ko tuddee le crime ici c'est tellement sévère que buñ la ci jàppee bu la yàlla taxawul ci peux faire une vingtaine d'années en prison donc vraiment monsieur le député loolu dee ko bàyyi xel te gis nañu ne du bii rek ñu bari dañ lay utiliser léegi parce que même benn policier dugaloon nañ fi benn policier temps yële passé bandi la délinquant mu dem photo wu ak yow utiliser foto yi nga xam ne moom nga photo wu ak moom ne la supporter ma patriote yaa ngi may attaqué patriote laa nga génn di ko supporter donc moytul yooyu il faut faire attention on sait que tu es très juste et tu es vraiment quelqu'un de très honnête bëgg réew waaye moytul bandi yi nga xam ne dañuy ñëw laqatu sa ginnaaw pour légitimer seen ay attaques personnelles contre les gens et on va pas l'accepter parce que ñun fii ci one million marche amuñu xàjj ak seen képp ku def lu baax dañ koy fësal képp ku def loo xam ne méngoowul ak yoon aussi dañ koy génnee ñu wax ko pour àdduna bi xam ko donc monsieur le député erreur catastrophique pour ngay génn di supporté ku mel ni Bah Diakhaté wala naan euh, nañu décriminaliser lii décriminaliser la le Bah Diakhaté est Bah boo bëggee dégg terroriste c'est un terroriste te yi gën a ndaw moom la ñu wane demal xool Bah li mu def docteur Alfousseyni Faye euh, Alfousseyni mais kooku il a pas perdre sa vie ndax nit yu mel ni baajaxate tuuti ñu rey docteur bi le gynécologue ak Alfousseyni Faye tuuti ñu rey ko ak ñeneen ak imam ndaw ak yeneen nit yu baax dem leen xool Bah Diakhaté leen wax ba ci ñun ñii mais moi je me toujours que baaxul sax ma koy wax ndax sama njaboot tamit ndeysaan ay nit lañu mais ñun on est solide comme ku mel ni man tey ay waxu caaxaan wala ay ay pic yëngaluñu ñun yooyu yëngaluñu ça nous fait ni fo ni chaud ni pour ngeen bàyyi loolu xel mais dafa am yeneen nit yoo xam ne vraiment il abuse boo xoolee tey euh, ki Macky Sall def député noonu saagakat boobu. wala yeneen ak yeneen saagakat yi da ngay xool déjà wax yu ñaaw kaddu yu tegginewul wala tappale yi nga xam ne moom la ñuy jël di ko teg doomu aadama yi dem leen ngeen seetaan ko wala ñu jël sa ay wax di ko déformer di ko fabriquer wala cette dame qui était ici euh, en Californie ak ñeneen dem leen ngeen xool wax yu ñaaw yi ñuy jël di ko teg doomu doomu jaamur yi léegi loolu boo ko décriminaliser donc tu veux donner le feu vert à des mercenaires pour pour attaquer des personnes dignes bàyyil ñoom ñu attaqué waaye bu ñu attaqué mayal doomu aadama yi aussi ñu am droit dem ci yoon yoon topp leen am na ay jigéen am na ay góor am na tout voilà donc li ñu intéressé ñun vraiment dañu ne vraiment képp kuy nit te nga nekk nga bokk ci Sénégal te nga am loo wax waxal mais prends tes parce que nag yéen a ngi def ci nguuru Macky Sall ci nguuru Macky Sall yéen a ngi doon jaay doole mais fi mu ne nii jaay doole bi jeex na jaay doole bi dafa jeex jaay doole xam nga déglul xoola lii may vous n'avez pas compris parfois les choses et vous ne comprenez pas on n'est pas mais nag wax dëgg yàlla yenn saa dañuy bañ yenn situation yu compliquées yi pour ay nit di ñëw fii di manqué nit ñi respect xam nga donc dañuy bëgg rek vraiment képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi te nga bokk ci réew mi nga ñëw vraiment nga def li nga xam ne moom moo war voilà nga def li nga xam ne moom moo war kenn ku nekk ci ñun na nga def sa àq sa yelleef nga xam sa àq sa yelleef mais kenn ku nekk ci ñun aussi na nga sàmm sa àq ak sa yelleefu morom Tunkara li mu def il prend ses responsabilités Ablaye li mu def na jël ay responsabilité loolu mooy dëgg voilà justice pour no martyrs loolu moom defe naa débat boobu dañ ko sax dépassé ba léegi ñu ngi koy jooy justice pour no martyrs gars yi maa ngi leen di sant di leen gërëm dañu ne woon ñu indi vidéo bi rek jagleel ko suñu honorable député Guy Marius Sagna pour nekko ko du mbir yi yëpp nga war a dugal sa sa sa sa sa commentaire parce que yéenay passé les lois donc si c'est vous qui passez les lois et vous regardez ces bandits de grands chemins qui sont en train de détruire des vies, qui sont en train de vraiment dire des choses qui sont très dangereuses dans cette. xam nga dinaa la wax dara xam nga loi li ci baax mooy au moins nguur day def liggéeyam mais xam ngeen ne ku mel ni Bah Diakhaté mii tey bu continuer def. loolu laa gëm dama gëm ne il faut yenn saay ñuy bàyyi xel nit ñi ñuy bàyyi xel aussi yeneen doomu aadama yi parce que li Tunkara man a muñ Demba war na koo euh, mën a muñ wala Samba man na ko bañ a muñ donc je pense que yooyu dañ koy bàyyi xel toujours te ñaan yàlla rek mu dimbali ñu ba suñu Sénégal bi incha allah mu avancé waaye les amis ne vous en fait pas je suis encore de retour comme toujours incha allahu rabbi lépp lu ñu man pour defal ko réewu Sénégal bii ba mu génn ci guuta gi mu nekk ba njiit yi nga xam ne ñoom lañu fal incha allahu rabbi ñu am ndam ci paleef bi dinañ ko def voilà donc euh, ku yaakaar ci xoqotal wala nga yaakaar ci ay tappale wala nga yaakaar ci ay njuuj njaaj wala nga yaakaar ci ay saaga wala nga yaakaar ci ay manipulation demal nga naani sa café kafe baax na lool pour sa santé demal nga naani sa café te seddal sa xol te xam ne lii day soog a tàmbali rek yenn saay nag dafa baax comme sama benn kilifa bu baax la muy wax mu ne il faut jeter euh, euh, du fromage pour nga xam les euh, les les vrais souris donc noppal leen seen bopp je pense que ku xeex ak nguur juróom-ñaari at te nguur gi mënu koo détruire je pense que du tey ak ñaari nit wala ñetti nit yoo xam ne ndeysaan c'est des frustrés yu ñàkk doole ñuy wax ay waxi dof gars yi di leen entertain di leen déglu di leen tàccu wala di leen kokkoli moom koy dindi non non non on en communication léegi te on est fort on a des des peaux solides donc ñu ngi santaat ñëpp di gërëm ñëpp incha allahu rabbi di ñaan yàlla ngeen dëgër sama xarit yi dëgër leen nag voilà dëgër leen jot naa woote yi jot naa message de support yi jot naa lépp. voilà donc euh, SFE mu ne OMS oh, oh, Ndiaye Diatta mu ne l'objet de notre combat c'était de dégager Macky Sall way way c'était de dégager Macky Sall et aussi gouverner xam nga tey comme yàlla def na jële nañ fi Macky Sall il faut aussi ñu doxal te ñii nga xam ne ñoom la ñu fal aussi il faut ñu jàppale leen il faut savoir que ñii ñu fal amuñu jot pour jëflante amuñu jot bi ñoom ñu ngi doxal le président Ousmane Sonko tey d'ailleurs mi ngi recevoir délégation euh, Arabie Saoudite le président euh, son excellence Bassirou Diomaye fay mi ngi ci débat bale te defe naa bu ci paree suba mi ngi dem Mali ak Burkina Faso donc je pense que il faut ñu xam ne ñooñu amuñu jot bi mais nu nu les patriotes laa wax waxuma les mercenaires ku ñu fay xaalis nga jël ngay tàppale ngay semblant yow waxuñu la parce que bari bari na il faut savoir que beaucoup parmi nous ici c'est des manipulateurs mais loolu garaawul il faut nit ku nekk nga nga bàyyee ko li mu moom du dëgg voilà mais ñun ñi nga xam ne Sénégal moo ñu ñor waxuma mën a mën a bi Tunkara ak Ablaye ak Mademba ak Masamba ñun ñi nga xam ne Sénégal moo ñu ñor ñun ñi nga xam ne ñoo fi ne woon démb ku ñëw ñu sauver la ku ñëw ñu xejal ku ñëw ñu indil la ñu ñu tàccu la bravo teg la ba nga dëgër jàpp say mbagg ba nga dox comprendre ñun dañu ne ñu continuer xeex bi ñu continuer soutenir lii nga xam ne moom mooy le président Ousmane Sonko ak le premier ministre Bassirou Diomaye Diakhar Faye c'est très important kilifa moo ma koy wax toujours mu ne ma diw ma ne waaw mu ne doo tabax sa château ci diggu àll bi te doo ko sàmm te loolu moo ñu dal ci le président Ousmane Sonko ak le président bassir Diomaye Diakhar Faye dañu jël ñaari xale yu gën a xarañ ñaari xale yu ñu gën a bëgg ci Afrique gis nga tey réew moo joxoon le président Ousmane Sonko wala président Bassirou Diomaye Diakhar fay kooku day avancé day avancé réew moomu day avancé mais dama ne nañ leen protéger nañ leen protéger nañu protéger suñu président ak suñu premier ministre nañ leen protéger te xam ne noonu yi soriwuñu noonu yaa ngi def ñoom li ñu man et ils ont beaucoup de milliards mu ne unity is the key to protection and very well said sometimes it breaks my heart that we mais xam nga il faut ngeen am loo leen comprendre dama leen di wax kilifa yu baax yi dañu daan ne ñu ne montre yi bokk heure montre yi baax yëpp ñoo bokk heure dama bëgg ngeen xam loolu mais bu leen fàtte ne nee naa leen dañu bari ay mercenaires voilà dama ne dama bëgg ngeen comprendre ne ñun combat bi ñuy combattre dafa bari ay mercenaires il faut ngeen comprendre loolu faut ngeen comprendre que ce combat que nous dafa bari ay mercenaires dafa bari ay façon am na ay nit yoo xam ne d'accord xam nga lu leen fi indi mais am na ay nit yoo xam ne aussi doo comprendre. mais dama leen ne montre yi baax yëpp ñoo bokk heure loolu bàyyi leen ko xel mooy tous les vrais vrais patriotes dama leen ne les patriotes ñi nga xam ne Sénégal la ñu gëm ñoom ñoo ànd mais am na beneen pàcc boo xam ne aussi seen bopp moo leen fi indi ñooñu du ñu supporter kenn du ñu ànd ak kenn ñooñu foo leen fekk dañuy jéem a affaiblir ñëpp pour seen prix yokku donc loolu tamit bàyyi leen ko xel. mënuloo dajale lu baax ak lu bon gis nga pomme de terre bu bon boo ko dugalee ci biir saaku pomme de terre bu baax da koy nëbal donc am na ay nit yoo xam ne il font semblant et ils sont dans les réseaux mais boo leen dégloo da ngay xam ne ñii du intérêt général moo leen fi bàyyi c'est des intérêts personnels donc yooyu da leen di teg fële mais am na ñeneen ñoo xam ne. ñooñu xam ngeen ne Sénégal rek moo leen fi bàyyi ñooñu duñu mës a changer ñooñu ku ñëw dañu lay soutenir ku ñu xam ne Sénégal moo la yëkkati dañ lay jàppale di la dooleel di la yëkkati ba yàlla dimbali la nga am doole mais nag parfois on n'est pas parfait parfois nga yëkkati noonu te doo ko xam xam nga Sénégal nag nit ñi dañoo jafee xam yenn saa yi nga jël nit dooleel ko ba yaakaar ne yow ki nga dooleel ni njariñu Sénégal la te fekk noonu nga dooleel c'est important ngeen xam yooyu. mais concentré wu leen rek ngir yàlla ak yonent bi nañu concentré wu sur l' essentiel may ñaan yàlla rek incha allah rabbi ngeen jéggalaat ñu ci bépp euh, matadi parce que doomu aadama moom matul te gëm naa ne aussi kenn ku nekk ci ñun am na foo manee ak foo maneewul te xam nañu ne ñun ñëpp rek ci sama ngëm-ngëm ñun ñu bari ci ñun Sénégal moo ñu ñor te ñi nga xam ne aussi Sénégal ñoru leen je pense que l'histoire nous a donné raison wane nañu seen bopp te yàggul voilà wane nañu seen bopp yëpp a ngi feeñ lépp a ngi feeñ xam nga Sénégal moom <laughs> yàlla dafa bëgg Sénégal de combat bi combat bi yàlla dafa bëgg Sénégal de il faut faire attention man nee naa leen les Sénégalais vous êtes assez intelligent man mii ngay gis dama bëgg ngeen xam rek je je je suis au courant de tout je suis très informé. je suis très très très très informé donc euh, bëgg naa rek ngeen bàyyi loolu xel ngeen xam ne yenn jarul sax amaana ngeen ñu koy jottali parce que dinañ ko gis waaye incha allahu rabbi mu ne waa pensée unique <laughs> moo leen di déranger di gudd de <laughs> voilà donc gars ñu ngi leen di sant bu gërëm mu ne <laughs> ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. waaw soxna Kati Ndiaye yal na la yàlla may xol bu feex féex euh, Bougane Gueye Dany supporté ko nag lu baax la waaye waxal sa càmmiñ ne il faut mu fay lempo ndax réew moom <coughs> boo bëggee mu avancé il faut nga fay lempo loolu daal new ci loolu du du du euh, du mbañeel voilà vraiment na fay lempo su fa mënul fay lempo na jaay télé bi keneen koo xam ne mën naa fay lempo na fay lempo Bougane Gueye Dany laaj leen ko ban dëkk la doon defee rajo Amérique la new di fi def rajo laaj leen ko ñaata la daan fay Bougane Gueye Dany cent cinquante dollars la daan fay guddi bu nekk pour doxal rajo émission rajo cent cinquante dollars par nuit émission rajo loolu calculer émission rajo par nuit nga fay cent cinquante dollars ah émission rajo nga fay cent cinquante dollars par nuit n'est-ce cent cinquante dollars léegi cent cinquante dollars fukki fan yu nekk ñaata la mille cinq cent dollars par nuit ah par nuit léegi mille cinq cent dollars euh, par dix jour léegi weer bi ñaata la quatre mille cinq cent dollars quatre cinq cent dollars léegi loolu boo ko par douze ñaata la cinquante quatre mille dollars ok. cinquante quatre mille dollars loolu par année loogu boko ci fukki at ñaata la cinq cent quarante mille cent quarante mille dollars c'est presque un milliard de francs CFA ci rajo rajo laa la wax rajo waxuma la rajo boo xam ne c'est divisé c'est diffusé à travers le monde rajo boo xam ne New York lañ ko teg muy WPAT 930 AM pour nga doxal ko il faut nga fay les environs de 540 000 dollars par année te pourtant ñoom dañuy fay loolu sans souci sans souci ah dañ koy fay léegi yow naka ngay bëgg a fayee loolu waa Amérique nga dem sa dëkk Sénégal pour avancer loo sa réew nga yor ab télévision. di fa indi ay musiciens di am ay ay milliards yu ñu lay fay ay publicité ak yeneen ak yeneen nga ne bëgguloo fay ah mais loolu mënta nekk waaw donc sama mbokk il faut vraiment ngeen comprendre ne c'est pas notre combat n'est pas personnel voilà dañu bëgg ñëpp fay dañu bëgg ñëpp fay muy Bougane muy. Euh, Euh, nu mu tudd Maimouna Ndour muy keneen muy keneen dañu bëgg ñëpp fay lempo muy Youssou Ndour muy ñeneen fay leen lempo parce que lempo mooy développé réew boo fayul lempo réew moomu nu muy développé yow nga bëgg sa réew am courant nga bëgg sa am ay l'hôpital nga bëgg sa am ay tali yu baax nga bëgg sa réew am ndox nga bëgg sa réew am lii nga ne bëgguloo fay lempo mais léegi kon yow kay demal dëkk ci nguuru gi daal. Bougane il habite dans les immeubles les plus luxe yor këram gu rafet nekk ci jàmmam nekk ci olala mais vraiment wax dëgg yàlla xam ngeen ne loolu du mbirum xoxote ko vraiment l'impôt moom lu ñu war a fay la te sénégalais yëpp yaakaar naa ne d'accord nañ donc gars yi encore une fois maa ngi leen di sant di leen gërëm euh, c'est un homme digne constant honnête et sincère d'accord s'il est un homme digne constant sincère et honnête on n'en on disconvient pas il n'a qu'à payer loolu c'est très bien Bougane nit ku baax la sincère honnête digne na fay l'impôt comment tu peux être honnête sincère digne et tu ne vas pas payer des impôts mais tu n'es pas digne tu n'es pas ku bëgg a honnête digne bëgg a baax bëgg a changer sa dëkk vraiment fayal l'impôt man de personnellement Ousmane Tounkara j'aime payer mes impôts impôt defe naa ne bépp citoyen bu baax waru koo négocier da nga ko war a fay donte yenn saay mën ngaa am ay jafe-jafe boo amee ay jafe-jafe man ngaa def euh, li ñuy tudd payment plan maanaam nga dem waxtaanee ko ne ah diviser leen ma ko ba fay ko mais nit ku baax ku ne de dafa war a fay lépp lempo de wax naa leen même ci suñu diine ba sax dafa am zakat voilà zakat yàlla dafa ne kenn ku ne alal bi ngay am nga dagg ci benn pourcentage chaque année nga joxe ko pour miskin yi donc euh, tubaab yi copier ci loolu vraiment ñuy fayeeku lempo voilà donc. Euh, comme niñ koy waxee rek les cinq piliers de notre religion daf ci bokk l'impôt ah boo paree kalima shahada dañ la ne ginnaaw bi nga ne ashhadu an laa ilaha wa ashhadu anna muhammad rasulullah dañ la ne nga iqaamu salaati wa itaau zakati wata sawmi ramadana wata hajjul bayti liman istataaw liman istataaw ilayhi sabila maanaam eh, aji màkk bi moom dañu ne ku man waaye lempo bi waxuñu loolu dañu ne kenn ku nekk ci ñun wa itaau zakat li nga xam ne moom nga am muy sa alal te nga bénéficié wu ci da nga ci war a fay lempo ci diine bi sax léegi nag nga bëgg yow ci réew mu normal nga dëkk ci ab réew bëgg réew moomu dox nga ne doo fay lempo donc fay leen lempo donc ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu leen mer nag jarul mer fayal lempo rek voilà donc euh, jarul euh, jarul mer dégg nga donc euh, ni ko suñu maam Ndiaga Ndiaye woyoon fayal lempo fayuma lempo loolu jarul jooy fayal lempo rek kaay juboo fay leen lempo te ngeen uh, gunge gouvernement bi yaa allah yàlla may ñu ndam ci li nga xam ne moom la ñuy xeex te ñu continuer combat bi te xam ne c'est Sénégal kii gañ voilà ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax bu kenn mer nag bu leen mer bu leen mer dégg voilà opposition dafa metti voilà ñun nekkoon nañ ci nekkoon nañ ci xam nañu metti tam donc euh, ñun duñ leen teg liñ ñu tegoon kenn du leen ko teg incha allah rabbi ndax ñun duñ leen jaay doole nous allons seulement appliquer la loi nag loi bi moom dañ koy appliquer parce que léegi Sénégal du amati waxaale du amati neexal ay procureur neexal ay juge loolu moom dañ koy dindi moom wala neexal ay agent impôt et domaine wala neexal ay policier loolu dañ koy dindi waaw loolu yëpp day dañ moom réew mi moom dana dox moom incha allahu rabbi day jub xocc voilà day jub tous les ministères ministres yi léegi fayu ministre rek la ñuy am du ñu doon ay milliardaires léegi doo gis ay fonctionnaires milliardaires ci Sénégal lépp dañ koy jaarale yoon incha allah donc jarul saaga jarul saaga jarul xaste man ngeen opposé wu nag ndax keroog gis naa seen manifestation bi euh, euh, euh, nee nañu Sonko dictateur Sonko mooy président wala ba <laughs> président ba Diomaye Faye mooy président <laughs> gis naa leen génn waa APR juróom-ñetti nit xaw ma ñaata nit la sax dix-huit personnes. Sonko dictateur bàyyi leen Sonko mu liggéey tey ngeen liggéey man ngeen nag opposé wu parce que opposition pour man dafa xelti lu baax la ci ab lu baax la opposition lu baax la baax la baax la baax la baax la baax la incha allahu rabbi voilà opposition lu baax a baax a baax la opposé wu leen rek mais teg ko ci dëkk voilà mais mënatuñoo nangu moom ay diffamation ay euh, xam nga ay ay attaque di saaga ay ay fen ay tappale déedéet loolu duñ ko nangu Macky Sall ko woon il ngeen xam loolu loolu kenn ko nangu xam nga man li ma leen wax boo leen waxee tunkara lu ñaaw ci tunkara lay tunkara lay neex mu jéggal la nest mais mën nga ko wax Ablaye Ablaye bañ laa jéggal loolu Ablaye moo ko moomal boppam bul mere Ablaye parce que tunkara jéggal na la te Ablaye jéggalu la donc il faut faire attention si vous voulez attaquer les gens il faut assumer hein voilà do euh, gars yi yi il faut les yéen continuer leen ñun nañu concentré wu rek li nga xam ne moom la ñuy def incha allahu rabbi euh, Bah Diakhaté nag euh, bis ni ki démb defe naa yëg ngeen ne plainte yaa ngi yokku te aussi Doro Gaye defe naa moom it mbir yi mi ngi jax parce que am na dégg ay nit yu bëgg a génnee xaalis teg sur la table waaye Sénégal moom fi mu toll nii moom kenn du leen waxati dara waaye gouvernement Sénégal bi tamit maa ngi leen di gën a ñaxtu rek koppar moom saa yiñ ko jëlaatee ci nit wala nit ñëw teg koppar ci kaw taabal bi c'est vraiment impératif ngeen prouver fan la indee koppar yi fan la jëlee koppar yi man Ousmane Tounkara warumaa ñëw rek teg un milliard ci kaw taabal bi ne damay dem ba wala sàmba te man awma liggéey bu may jox un milliard donc blanchiment des capitaux yi aussi vraiment dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax voilà blanchiment capitaux yi ku indi xaalis daal teg ci kaw table bi xam leen fan la jëlee xaalis bi ak lan lay liggéey jaay jaaykatu euh, gerte boo xam ne xam ngeen ne mille francs lay am par jour wala deux mille francs kooku bu indee milliard teg ko ci kaw table bi war ngeen koo jàpp dugal ko ci biir kaso bi ba pare jël milliard bi confisqué ko comprendre loolu c'est important donc nañu bàyyi yooyu yëpp xel voilà gars yi maa ngi leen di sant di leen gërëm wa salaamualeykum wa rahmatullah